projet Promoville yi ñu waxoon yëpp ci Sénégal ñu ngi fii tey gis ngeen ñëpp arrêté lan moo tax parce que dëkk bi amul xaalis instant bii malay wax nii benn oto mënul circuler ñëpp actuellement ñu ngi ci situation yu difficile ambulance yi mënuñu évacuer seen i malade corbillard yi mënuñu dem ci cimetière yi nit ñi mënuñu dem marché oto yi mënuñu def fu mu nekk nii six heures de temps sept heures de temps def si yoon bi benn oto circulé wul lan moo tax Macky Sall moo organisé congrès congrès boo xamante ni pour lan la pour fecc pour way pour def yëfu caaxaan jël nit ñi jox leen ay tiset jox xartum di wër te sénégalais yaa ngi souffrir nit ñi am problème mu lekk nit ñi am problème mu naan nit ñi am problème mu jàngi nit ñi xamuñu fu ñu mu jëm tey mu ñëw amul lu muy def associé nit ñi téye nit ñi bloqué sénégalais yëpp tey kenn mënul dem fen parce que way dafa organiser congrès d'investiture mais lii ñaaw na ci réew mi mais nit ñi mënuñu ko nangu dëkk baa ngi nii ak bi mu nekk nii ñun ñi waroon tal leneen ñuy toog fii di def seen yëfu caaxaan yi mais bési ngi ñëw soreetul dinañ xam ne li ñuy def yëpp yëfu caaxaan la.